mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca Thiès ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. mujjee ko ak euh, Cheikh Omar Diagne ginnaaw nag coow li bi mu amee coow li mu fi amoon avant élection yi ci élection yi. Hmm. après daal génn na communiqué démb ca émission Astou Dione ca 2STV ñu déglu ci lëf te dellu si waat. man sax boobu dama bokk si tarixa di nga ba boobu ngay wax noonu. am na sax ñu dem ba créer ay wax naan kii dafa bañ tarixa yi bëggul sëriñ yi. man tarixa tijaan laa bokk. donc man dama am tarixa dama am sëriñ. man sama buntu si tarixa tijaan ma tudd Mawlana Cheikh Ibrahim Niass. man Kaolack laa jokk. te du ma taalibe bu ndaw man sama tur la moo cheikh ñu bari xamuñu fa la jóge ndax donc man dama bokk ci tarixa pare gëm jàngale mag ñi man dama gëm sax ni je suis le meilleur défenseur aujourd'hui de l'héritage orthodoxe yu fi mag yi bàyyi dama gëm ni tarixa dina jeex ci àdduna li tax ma ne tarixa dina jeex ci àdduna diine moo nar a jeex ci àdduna tarixa filial la maanaam doomu diine la aaxiru zaman bi yonent bi saasam jàngale du amati kenn kuy jaamu yàlla ci kaw suuf alxuraanu yàlla bi sax yonent bi saasam jàngale ne yàlla na ko nangu alxuraan du amati ci kaw suuf ndax jàngale mag ñi ñoom alaaji Malick ñoom surtout ñoom alaaji Abdou taxawaay ñu amoon bu ñu toogee seen ñoom nekkatuñu fi ñu bàyyi franc-maçon yi di di fësal

dugg dans les lieux de culte musulmans ba pare jéem fa camlangal ay mbir yi nga xam ne euh, mbir pour saboter suñu foi la. donc sama rapport ak diine yi de euh, sama rapport bu rafet la. rapport bu yanj la. rapport bu yiw la. man baatu këru diine laa nangu diine bi benn diine la mooy diine lislaam tarixa yëpp njabootu lislaam lañu dañoo nekk ci biir diine bi kenn ku ci nekk tëral yoon parce que baat bi sax tarixa ça signifie une voie tëral yoon bi nga xam ne pour aider des gens ñi gën a mën a yegg ci yàlla mënuma ci gis man lu négatif mënuma ci gis lu bon donc man turuq yi nekk Sénégal man dama fonk ñi ko ñi ko sanc fonk ñi nga xam ne ñoo ko jiite man sam bopp dama bokk ci tarixa muy dox lañu seen poche yi sàmm jéem a yëngal taalibe yi wax li nga xam ne mooy di daaneel di sos ak di wax dul dëgg sax ci sëriñ yi di utiliser jël ay bouc émissaire pour wane nous sommes importants nous veillons à la voie il faut ñu créer ay ennemis tarixa soo tagoon léegi wax benn wax bi nga xam ne wax bi arrangé wu leen léegi ñu ne kii ennemi kii tarixa bi lay xeex pour comme ça ñu mën a justifier seen existence en tant que défenseur de tel tarixa ñooñu ñoo ñoo créé mbir yëpp te man ñooñu yëngaluñu ma di nga ñooñu soxna asu doyuñu ma benn xëy pour revenir ñoom modèle bi ñuy woowee taalibe mën naa jël ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass bind na benn leer bi xam ne mu ngi si Jawahir Rasaayil muy wax kan mooy taalibeem li mu wax ci taalibeem naka la war a mel man ba ma ko jàngee xool ko dama remettre sama en question ne man matuma taalibe nekkuma taalibe ndax dana taalibeem gis ko moo gën a jafe gis mercure rouge nekk taalibe suñu mag nii c'est très très difficile ndax ils étaient dans un niveau bi nga xam ne soxna astu yombul nekk seen taalibe loolu la Cheikh Amadou Bamba wax Cheikh Abdoul Xaadir Jilaani loolu la wax ñoom ñëpp ñoo bokk benn langage ay taalibe yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi mm-hmm. sama langage li may wax du leer la si ñëpp ñi nga xam ne ils sont de bonne foi ngi noonu kooku mooy Cheikh Omar Diagne wax na yu bëree bëri ci biir nag ba ci niñ doon campagne aw turam ci biir campagne bi ak lañ doon wax te nee na li muy sant yàlla rek dem na ba ñi leen doon bëgg a jaxaseel comprendre nañu parce que ñoo ñuy gàddu woon discours bi sénégal yi sanctionné nañu leen mu mel ne Assane démb sax yaa ma njëkk a annoncé euh, mbir mi ni ma nag waa jaa ngi ci sii bi di ci def leeral bu am solo Euh, ni ma ni ngi leeral mbiru tarixa yi. Ah, ba après ci laa dem. xam naa ko dafa ah déglu rek alaaj alaaj baax na parce que su ma ko dégluwoon après day nappaaji su ma ñëwee mu mu pare joxaat ma ko. man démb man yëgu ma ko woon sax yaa ma ko annoncé ni ma ah mbir mi am na solo saa yi def na ci leeral bu am am solo comme ni ko Sénégal yëpp gisee. ñu bari dugal nañ ko gis naa sax ay booy yu ko doon xaw a di nga dugal nañ ko seen paas di war ni kat waa ji ndekkee dañoo dagga daggate woon ay waxam. waaw am na solo xam nga ndekkee dañoo dagga daggate ay waxam mais ay waxam la rek. waaw bisimilah. moo tax dagga daggate ñàkk a dagga daggate ñoo yem. bisimilah. voilà dagg daggate foofu dagg daggate ñàkk a dagg daggate wax moom wax la rek. waaw yow nag boo ñëwee rek yow yaa ñëw wax maana ay wax ja. lii kat li taxoon ma wax ko lii la fii laa tàmbalee woon bi ma ñëwee ba egsi fu doo daanu bi damaa yéeg doo daanu bi wàcc ñoom nag doo daanu bi rek lañu analyse mm-hmm. après nga leeral euh, Cheikh Omar Diagne nag mën naa am moo ñu gën a xam sunu mag ñi mm-hmm. mën naa am moo ñu gën a maîtriser sax njàngum njàngum mag ñi njàngaleem mag ñi mën naa am moo ñu gën a jox war ma wala moo ñu gën a bëgg mag ñi mm-hmm. waaye dañ koo takkal étiquette dangaa bañ sunu mag ñi ba da koy topp léegi nag li mu war a def rek mooy fexee tekk étiquette boobu sànni ko sa àll ba. Uh-huh. mais boo ko déggee muy wax yow mi nga xamante ni nit ñi liggéey nañ ba sol loolu ci sa bopp da ngay continuer di ko di ko xoole te loolu dafa war a def effort def tout pour loolu mu jële ko ci bopp nit ñi. xam nga nit ñi moom lu ñu xis di xalaat ak jàppale ko rek dañ la koy xoole uh-huh. te mën naa bañ a nekk mais nag yow yaa war a jëf-jëf joo xamante ni nit ñi dañ xam ne kii liñ lay xoolee ak ak li am du benn. Uh-huh. Cheikh Omar nag euh, man mbiram mii bi mu amee fi mu toll nii élection yi jàll damaa gis ni am na ñoo xam ne yoon daleen see war a woolu wala ñu duma leen ñun. ñu duma leen si yoonu pour quoi ñuy wax non si yoonu murit sax ñi nga xamante ni dañuy wax nee nañ ay murit lañ. pour pourquoi. waxuma nag sëriñ yee doon combat sëriñ yi doon porte combat bi waxuma ak ñooñu. yow koo bëgg a dumalu. mais ñi nga xamante ni damay gis ñuy toog ñu naan seex Omar Diagne daane na seen sëriñ si Cheikh Omar Diagne saaga na seen sëriñ ba pare gañe leen Cheikh Omar Diagne musta saaga suñu sëriñ Cheikh Omar Diagne ñi mu wut a saaga suñu sëriñ. musu leen saaga. musta suñu sëriñ ñi mu wut a saaga amul fitu saaga suñu sëriñ. waaw kon nag ñi toog si palaato yi ak di toog si rajo yi naan Cheikh Omar jaañ saaga na seen sëriñ ba pare gañe leen si wan yi. Hmm. waaw te identifié woon ni xañ nañu bokk si yeneen kuréel bokkuñu Pastef ñeneen feneen lañ bokk dëgg la maanaam naan ñoo Cheikh Omar Diagne si gagné naan mbir mi Cheikh Omar ah. Diagne si gagné moom mi saaga seen sëriñ ba pare ñu gagné fa ñoom waaw ñoom dañ leen war a duma dañ leen war a duma ndax ñoom ñoo saaga suñ sëriñ waaw ah, Cheikh Omar saaga ñoom ñooy dendale suñu sëriñ ak saaga waaw hmm. ah, loolu nag ñi nga xamante ñoo doon xeex combat bi hmm. ñoom nañ jóg identifier ñi nga xamante ni ñi ngi toog si plateau yi naan Cheikh Omar Diagne saaga na seen sëriñ ba pare gañe leen. Hmm. kon Cheikh Omar Diagne gañe na leen nañu dem identifier ñooñu ñëpp ñu yóbbu leen si yoon. bugaan loolooy rafetal combat bugaan ko wax ci plateau hmm? bu mujj bi bugaan. wax na ko waaw moo tax ma ni la dama ne ko wax wax loolu. Hmm. nañ la identifier yóbbu si yoon. ndax nga leeral saaga Cheikh Omar Diagne ñi mu wut a sëriñ xalaatu ko. dëgg la. kon nag boo taxawee naan Cheikh Omar Diagne saaga na seen sëriñ ba pare gañe leen si seenub dëkk loolu wax ju ñaaw la nañ ko ba mhm. na si ñooñu nga xam ne ñoo comme porte combat bi nañ jóg lijjanti loolu yi baa ma lijjanti ko. yow ma ko lijjantee ñoom duutuma leen dégg ñu taxaw si ay combat. <laughs> yow yaa koy lijjanti waaw noo naa ko lijjanti. mais loolu weesoo asan nañ bàyyi mu sedd rek. fan yii laa ko plateau yi ba tey tey tey tey ñu ngi koy wax. tey amaat plateau yi ñu ngi wër. Ah, plateau yi ñu naan Cheikh Omar saaga na ba pare. seen sëriñ daa gagné na leen saaga na seenub sëriñ. ba pare jël ba pare leen. waaw Cheikh Omar dafa bokk si ay élection Cheikh Omar Diagne dafa saaga sunu sëriñ. déedéet léegi nag kii wax loolu kay ba pare diñ ko jiiñ ñooñu dañ ko war a lijjanti. waaw ah, Cheikh Omar bu ko defoon sax ñun ñoo koy lijjanti. waaw bala ko sëriñ see lijjanti. wax ju ñaaw la joo xamante ni war a taxaw rek leen su nu mu gën a gaawee. leen di diglu bu fekkee dégguñu wax jooju kuréel gi kan moo koy taxawal ndax ñi daan waxtaane sëñ Tuubaa ña ngay ko mën a lijjanti ñii nii dañ ko lijjanti su fekkee mënuñu ko lijjanti nañ ma woo ma yónnee leen vidéo yi ñiy wax loolu ñu combattre mais kuréel gi koy lijjanti laa bëgg xam gan kuréel moo tax man la fekkee kuréel googu amul man incha allah rabbi dinaa jóg te du doon kuréel men man la te dinaa ko réglé. noo koy réglé ma jël duma duma waaw ñi koy wax ñëpp. ah yow doo xeex sa àdduna doo xeex. duma xeexuma de looy de duma laa wax. duma du xeex. déedéet nii la <laughs> laaj ko. waaw duma xeex bokkuñu. duma xeex bokkul. Ah, eh, man duma xeex mais ñii man xam nga lu tax man la xeex. xam nga sa doom danga koy duma xeexoo. waaw léegi léegi li may ñi ma dégg ñu koy wax boo gisee man xeex ñi ma dégg ñu koy wax. Hmm. ñu daan wax avant élection yi. Assane mënu leen a duma. xeex ak moom dong la problème waaw ak ñoom dong nga mën a dem. foofu la <laughs> Assane sax xeex xeex bu mu yenu man dama ci def attention. sa attention mën naa jékki-jékki tourné waat. lëngoog waaji sans dépend mën naa lëngoog waaji nga romb ko daal di ba kii xalaat booy xeex li fekk waa jàmm fu mu jaar moo tax ma la ñooñu Assane mu leen a dugal xeex boobu nga ma mën a am. waaye am na no am. boo ko woowee téléphone mu am lom ñëwee wala nga aawaay ko dara boo ko kàppee kañ xam nga ni Assane bu waa fii lay taxawaat retourné misil yi ci. Cheikh Omar naan Cheikh Omar nag <laughs> ma ko leeralee démb. waaw niñ ma ko leeralee Cheikh Omar dafa. saaga am na sew sew yi am na <laughs> kon kuréel gi muy gi muy bëgg a taxaw. kuréelam gi escroc la. kuréelu escroquerie kuréel gi ku ci dugg. kuréel rek non non Alaaji Assane non Assane nii mu waxee nag fulla la ci àndal de. fulla la a sore. <laughs> xam nga di jibbee booy topp la nga lambar lambari ba romb sa kër pour bañ <laughs> loolu fulla loolu fulla di wër benn la moom loolu mooy waaye di wëndeel mu jigi nga topp benn grand yoo romb sa kër vif te amoo fu lay ne waaji yow loo may toppee dafa mu robbee këram nga ko fa ngay dem soli di kër gu romb xool balcon yi jàll. gannaaw de. jërëjëf mais maa fulla de. allah non mais nag ba sujet bi tey alaaj alaaj ni mu ci waxee lii moom fulla ak fayda wallaay fulla ak fayda non du caaxaan ne tey dafa mer fulla ak fayda la. dama bilaay parce que nag dafa kii daal di wër aw nit naan leen diw day saaga sëñ diw ñooñu ñooy saaga sëñ bi. loolu dafa ñaaw daal. bul jël fulla am ko di ci def. dama leen di duma. non dama leen di duma bi yaa ngi saa tey tey fulla la taxawee saa mm-hmm. yoogu waaw mm, mbirum Cheikh Omar Diagne mm-hmm. démb nag audience bi bari woon na lool ci fañ ko invité woon ca 2S. xam naa gars yi dañu doon xool një génnam bi njëkk waaye bi mu ñëwee daal nee na taalibe yi comprendre nañ li xew. mënuma mhm. bañ mag ñi mënuma bañ diine ma bañ tariixa ndax ci laa nekk. Mhm. solol na ko nag am bubb est-ce que yow bi nga dégloo émission bi am nga ci gan nga ci am satisfaction ci li mu wax par rapport ak li ñu ko doon jiiñ. waaw man de yàlla def na wax dëgg fa yàlla euh, Cheikh yàgg naa koo déglu yàgg naa koo déggit waaw xam nga dégg nit uh-huh. xam fi muy waxee moo taxoon am na yu bari yoo xamante ni bii peut sax nga analise ko jàngat ko nit ñi mere la ne la Cheikh Omar Diagne naan yéen du ngeen ay taalibe waaw yéen du ngeen ay taalibe du ngeen kii parce que dégg naa ko quoi te nag uh-huh. boo déggee nit ki nag booy euh, wax ci ay li muy wax tamit wax dëgg fa yàlla war ngaa feeñal li nga dégg uh-huh. ci ay waxam mu juyaloo lool ak li nga xamante ni bii moom la ni ñi kii Cheikh Omar Diagne nag problème mooy eh, ñi muy xeexal. Uh-huh. dafa am lu ñu réussir. Uh-huh. waaw li ñu réussir mooy li Assane wax sànq muy étiquette bi ñu fexe tafal ko ko. Mm-hmm. loolu mooy réussir fexe ba ni daa bañ mag ñi. waaw mooy mm-hmm. réussir ñi nga xamante ni bii ñoom lay xeexal. Mm-hmm. Uh-huh. parce que Cheikh Omar eh, li ko indi problème ak ñu ñooñu maanaam dafa xam. li xew. waaw ba dafa xam ba noppi bëgg a xamal ñi xamut léegi hmm. nag ñi xam hmm. di yeewu ni Cheikh Oumar Diagne mii xam na waaye nag ñu ne balaa ñu muy xamal nit ñi nit ñi di xam li mu xam hmm. nañ ñu bëggut sëñ bi te bëggut sëñ bi yoon wu gaaw la waaw ah, bëggut sëñ bi xam nga ñu bari dañuy utiliser lu mel noonu boo seetee ci élection yi ñu génn rek am na ñoo xam ni da ngay sant Mbàkke ma sant Mbàkke ma féete fii nga féete fee nga ne ñu féete fee bëgguñu sëñ bi. waaw te fa nga féete Mbàkke la sant. waaw xam nga loolu. mooy yow ku àndut ci li nga ànd rek. yow say bëgg-bëgg say doxalin loolu nag la Cheikh Oumar Diagne comprendre dafa comprendre ne am na yoo xamante ni bii du mbirum sëñ bi comprendre. sëñ bi nekkut ci mbir yooyu léegi nag ñenn ñi ñoom ñoo jël yëf yi mooy li Cheikh Bara waxoon rek naan même bu ñu bëggee jigéen. bu ñu bëggee benn ngoro benn jigéen. Mhm. duñ na ko dama laa bëgg waaye dañ naan ko damaa gis sëñ bi ci yow. waaw waaw waaw. façon boobu ñi koy doxalee. Mhm. yooyu mooy yi nga xamante ne bii mooy Cheikh Oumar Diagne di dénoncer. Mhm. xam nga li mu leeral nii parce que am na bari waaw nee na jumaay Touba ji am na loolu Cheikh Oumar Diagne waxut mais ñay defar yëf yi. ñi nga xam ni ñooy architecte yeeg yooyu nañ saytuwaat seeni jëfin. Uh-huh. comprendre nga wax na ba wax bu màkkaak sijaada yu ñuy juleeg yépp uh-huh. leeral na point yooyu yépp nga xamante ni bi tey ci uh-huh. foofu lay waxee comprendre nga loolu lépp nag li ko may xam nga man tey mën naa julli dem ci dem fële mais am na yoo xam ne xaw ma ko si ah. yenn yeeg yooyu dëgg la te man mën naa dem man ma tabaxlu sama jàkka bopp wala sama jumaa bopp woo nit mu defaral ko mu defaral ma fa ay si ah. fii laa fi ñëw sol fi ab yére benn waaye daan ne mbubb mi nga sol signe bi fi nekk signe maçonnique la kooku dafa xam man xaw ma. man mii jënd naa fi yére. waaw ma génn dem ku xam yére ba ni ma lii jox ma ko. lii suñu siiñ la. waaw yére ba solaatuma ko ma jox ko ko. voilà te maa ko jënd xam nga. parce que xaw ma ko. Mhm. te man bi ko ñaw. du du franc-maçon. waaw sa montre waaw yow demandé woo ko itam. demandé ko kii daf ma ñawar rek ma daa dee sol. nit xool daal di def kii def flèche ne Assane ne ko saa lii mu sol nii si ñu hmm. maçon franc-maçon la. effectivement kii bii lii. comprendre maanaam nit ñi par exemple dañ jot xam léegi nag yow boo xamee wax ne lii kat lii la imaginer tey téyër nga dem ñawlu ci téyër téyër ba defal la say kii nga imaginer tey ma supposons ma doon ko nupp sëriñ. bu nekk sëriñ boo xamante ni sëriñ bu mag laa daa dee sol yëre boobu ñu sëriñ bi xoolal li mu sol léegi ki xam bu xool da xool sëriñ bi rek. suñu maçon yi. bu ko waxee réew mi toj. dëgg la. comprendre te dañ koy dugal ci daamina yi. waaw dañ koy dugal ci daamina yi dañuy def lu ne te ñi koy def ci ñuy def daamina ñooñu dañuy inspiré wu ci ay affaire rek la ñuy gis mais affaire yooyu ñuy inspiré wu pare saa yi mën na nekk ay affaire kiiw franc-maçon yoo xam ne hmm. ñoom xamuñu. gis nañ rek ne rafet na lii bu ma ko defoon fii dinaa ko dina nice dina loolu léegi ñu copier dessin bi defal la ko. si si fekk ne mën na signifier leneen. Hmm. comprendre si loolu moo tax ne. pare na saa yi xam bi mu xam moo tax ki te leneen li mu wax. Hmm. mës nañu def jomet boobu ñu kii euh, studio Walfadjri bi nii. si suuf may wax ne la. Hmm. ñuy wax ci wàllu ki ma ne leen àddina bi munuñu lu dul dañuy retardé yëf yi mais mbon gi moom. Hmm. day gën a yokk. moom mooy li mu wax nii. waaw la parce que mbon gi day gën a yokk parce que loolu la diine jàngale. si waaw dëgg diine dafa jàngale ni. affaire day gën a dellu ginnaaw dana dem ba daanaka pour ku gëm yàlla ne fi problème lay def mooy li mu wax nii mais fa lañ jëm sa année bu jot da ngay gis day gën a loolu day gën a day a yokk uh-huh. mbon gi day gën a yokk léegi nag lii ñuy def nii yëpp kuréelu sàmm yi ak sàmm sa jikkoog sàmm lii ak sàmm loolu c'est pour retarder yëf yi uh-huh. mais ñi nga xamante ne bi tey ñoom ñoo nekk ci kuréel yooyu xam nañ ni uh-huh. li diine jàngale wax ñu ko mooy mujjug jamono dana dem ba lii dootu fi am waaw bu njëkk comme ni ngay wax alaaji xam nga bu njëkk daa daawoo gis jigéen bu ñu may génne ay cëram léegi dañ ko daan génne ci kër yi lañ ko daan sol yenn yi di jeg-jeg di ko génne ci mbedd yi léegi ñu ngi koy sol ci tiktok yi ma ne la am na sama benn rakk papa boo xam ne bii bis bi muy wëkk gis yàgg na li ma lay wax ni ay quatre-vingt ay quatre-vingt kii ay quatre-vingt-trois affaires yooyu jigéen ju sol tubéy dafa jaaxle dëgg la la tubéy rek tubéy jigéen ju sol tubéy léegi jigéen di sol tubéy jaaxal na kenn. déet ñuy sol kii sax di ko doxee. lu gàtt. gis nga léegi. te yaa ngi fàttaliku jamono jooju jamono jooju fi fi tolloon jigéen di sol tubéy. dafa jax nga dem ci place yi gis jigéen gu sol soutien daanaka ak. waaw am na loo xamante ni. nga gis ci TikTok jigéen gi sol lu gàtt di fecc nga jàkkaaram mbott mi. àggale. tëjal tëjal. jeex na waaw. merci beaucoup en tout daal di wax ni. Euh, li nga xamante ni bii. Euh, di sant aussi tamit xam nga sénégalais yi. que ni ñi nga xam ne ñi ngi utiliser loolu nañ xam ni tamit doxatut. parce que nit ñi. nekkuñu foofu. nit ñi xàmme nañ yëf yi bu baax ràññale nañ te dañ koo wane ci élection yi. d'accord nit ñi dañu wane ni. nit ñu ràññaleen kenn mënu leen a manipuler ti ci yenn mbir yi d'accord parce que ñoom xam nañ fi ñu teg seen sëriñ mhm. te it xam nañ ku ko manque de respect ak ku ko manque wul de respect comprendre nga mhm. te it wane nañ ko jàpp naa ni ñi nga xam ne ñi ngi def manipulation yi fi mu toll nii euh, war nañu xam ne yii doxatul quoi d'accord